asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre si Wassare Lamb Wassare TV di bëggee nag kulukum comme ni dañ ciy dox loolu moom moo tax tey ñu seetal leen ko mu nekk koo xamante ni nag kenn du ko présenté kenn parce que def na sorti wax dëgg yàlla depuis loolu. gisuñu ko gaa yëpp nag ñu koy wër te nag Wassare Lamb wax dëgg yàlla ñoo fas yéene waxtaan ak moom ndax ñëpp xam nañu euh, ba euh, ak ki xamante ni moom mooy ay Jack moom ak Jackson Junior bu Guédiawaye ah, la fantôme ki xale bi nga xamante ni moo nekk écurie Fass ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ndax gis nañ ni dëpp ba mu bëreeg Jackson ba tey wax ji bari gisuñu ko gis nañ euh, wax ci ñi naan Pape Ndoye pourquoi mu jël Jackson ñi naan combat fi maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu àdduna yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sant sama yaay ak bu baax di leen sant di nuyu àdduna yëpp waaw di ziar ñëpp comme ni ñu ko doon defee rek waaw. Pape euh, man. Uh-huh. est-ce que defuma douze combats. Mm-hmm. douze combats. ñaata défaite. deux défaites. kan moom daan. a daan ak Gamou Gueye. ak Gamou Gueye. Pape hmm. ñu bari say combat dafa néew pour nga bëri c'est tout un problème ñu gis ni bëgg dem booy jaay sax sa combat bi bëri gars yi ne c'est mais bala ngaa ñëw sa combat ak Jackson kan nga mujjee bëri. man. Mm-hmm. laay goote laa mujjee bëreel. Mm-hmm. laay goote. Mm-hmm. Euh, année balance ñaata nga année balance. benn yoon laa année balance. ñu gis ni Pape Ndoye da bokk ci booy yoo xamante ni allah écurie Fass yi am ci yow yaakaar booy yi fii ñuy wax ñëpp dañ naan Pape Ndoye Pape Ndoye gis ni Pape yow léegi sa làmb dafa commencé suuf lan moo waral loolu. waaw loolu li ko waral mën naa ne lenn la rek yàlla moom xëy na mooy bind ay mbiram ak nu ko neex rek la koy defe nu ko neex tamit la koy soobee waaw xëy na moom yàlla suñu boroom. mooy may nit ki wér mooy may nit ki pour tan pour mu def fi lenn li yàlla daal mooy sabab jaam bi ci lu ko neex pour mu dox ci loolu noonu kon man lépp lu dal sama kaw rek wala lépp lu ma am rek comme ni ma ko sama yaay ak sama papa di waxee rek mooy tegal lépp ci loxo suñu borom nga concentré wu nekk ci sa yoon bañ a déglu dara bañ xool dara comme noonu rek laa ko jàppee waaw. maa wax fekk ji woon waaw. Mhm. waaw ñu boobu ñu ci génne naa ci entraîné naa ci bu baax def ci lépp lu ma ci war a def waaw tem bëre combat boobu laay goote mënoon na ma daan comme ni ma ko daane ndax bëre ji naa ko ak blessure combat boobu bëre ji naa ko ak loxo. barki Seydina Mohamed sama combat ak laay góote bëri dinaa ko ak loxo sama combat ak bébé bis mi bëri dinaa ko ak sévi ay blessures ak pakale senior ba ci sama combat bu mujj kon yow xam euh, mhm. nga nekk écurie bu mhm. ñëpp nga bëre blessure nga euh, tax loolu loolu est-ce que yow sa waa écurie dinañ xam ne yow da ngay bëre ay blessure waaw ah, parce que yenn yi benn bi benn bu mujj bi daal moom laa man ni moom la ñu bari xaw a soupçonné te ba tey dama koy bañ man dama ko doon nëbb dama doon làq-làqal ndax yéenee xëy na su may dal day fekk fin d'entraînement la may dale bu ñuy jeexal jeexalukaay làmb ji dootu mu mën a fournir lu bari su boobaa dama koy max rek nëbbu ko taf samay élastro xam nga gérer su ma ñëwee ci kër gi toog ut sama glace xam nga def rek comme boo gëmee sa bopp rek gëm ni yenn gars yi mooy loolu noonu waaw man noonu esprit boobu laay demee man adversaire moo mënti taxawal ci àdduna jàpp naa ne man maa mën waaw man noonu laay demee noonu laa mel te ba tey loolu moo nekk ci man waaw. gis li nga simple yi. bi ma ci commencé di bëre commencé woon naa di ci bëre bi ma ciy bëre yàlla suñu borom suturaal ma ma ñëw. dem ci ba dem ba final di dem ay final di bëre di jël. di def lépp daan naa Pape daan tase naa ci ak Pape Mbaye Dóor daan ko. waaw bu Géejawaay tase naa ci ak Caaka Fay daan ko. ah tase naa ci ak Ndiaye Tine daan ko. tase naa ci ak ay champion yu baree bari fii su ma fi toogee di lim sax moom du ma fi jógee ay ndaanaan yu bari tase naa ci ak ñoom waaw. parce que anne blanche bi balance bi la te maa ngi doon entraîné sentir sans bopp. sentir sama bopp parce que mujj gi sax gis nga ma arrêté ko mujj gi gis nga ma arrêté lutte simple bi parce que instant boobu noonu ah am naa benn blessure di ko nëbb ma arrêté booy may àndal suñ ñëwee ni ma lan moo tax demoo mbapat wala lan moo tax lii man leen non dara nañ bàyyi ba bii di ñëw nañ bàyyi ba bii di ñëw barke Seydina Mohamed ndax instant boobu noonu sentiru moon sama bopp daal sentir moon sama bopp ndax tase naa ceeg franc benn combat boo xamante ne nii quart de finale lañ doon bëre man ak moom waaw man ak franc Iba Mar Diop quart de finale lañ doon bëre ku daan dem finale damay bëre di bëre di bëre ba mu yàgg sama fi doon metti cuuc ma jekki-jekki jàpp rek taxaw arrêté bëreetuma depuis loor boobu nag après ma demaat demaat xam ne lii nii jëmul kër te mën naa gën a lor sama bopp ci laa arrêté demaatuma woon ba Paris mu jigi ñu gis ni moom xale boo xamante ne muy Jackson Junior. Mhm. moom tamit mu nekk ci yoon. Pape euh, naam say combat day jafe mais lan moo taxoon nga jël Jackson Junior. waaw Jackson Junior moom <clears throat> li taxoon ma jël ko xëy na bëgg a bëre bëgg a bëre li taxoon ma bëre combat bi tamit bëgg a bëre ndax euh, Lac Lac Rose samay toog sax di gis ay mbër yoo xamante ni bokkuñu écurie ñu koy woo di ko laaj ci komba naan ko lii laa bëgg kan laa war a jël wala dara ma siy dégg chaque jour kon kooku kooku rek exemple la ci man ndax mosuma dugal du ma dugal ci lu baaxul sama ndam rek la bëgg sama jàmm rek la bëgg tamit barke Seydina Mohamed mais discuter naa ak moom ba mujj gi moom ci boppam sax tey day mujjee lu ñëw rek danaan ah naa naa ko bàyyi mu dugg. waaw waaw sama combat ak bi. Euh, euh, hmm. ma jëloo ko pour comme man maa jël combat bi maa jël combat bi ndax bëgg a man maa jël combat bi ndax bëgg a ndax jóge naa ci année balance. Hmm, yaa ngi dégg bëgg a bëri làmb. ma ne damay bëre di gis samay morom di bëre ma ne damay bëre ba ci Lac Rose ni ma xaaral jarul ngay yàqamte ma ne ko man damay bëre mënumaa xaar te lu lum lu ma mës a wax ci làmb rek gis naa ko waaw lu ma mës a wax ci làmb gis naa ko ndax barki naa Mohamed yàlla rek moo tax may wax billaahi wallaahi taalaay nii la ma waxe woon ni ma bëgguma nga bëre ji combat bi ndax xëy na moom moo ko xam ndax am na loo am na yoo xamante ni xëy na moom moo ko seetlul boppam ci ay démarches yu bari ci man yoo xamante ne nii xëy na moom gis na ko te moom man du ma ko nëbbu moom léeg-léeg koy wax mais combat bi dama koo nëbbu. man dama koo nëbbu man. Ah, man maa nëbbu la waaw. man maa nëbbu la grosse nëbbu samay père ñoom père Tafa Gueye nëbbu ñoom père Abbas Ndoye nëbbatu ñëpp waaw. dem bëri ji bi ndax bëgg a ndax gëmoon naa ne man même su fekkee benn tànk lay doxee sax man damay gëm ni man maa mën. que yow réellement mhm. Jackson la da ko nëbboon. non adversaire la. Jackson Jackson man xawuma ko woon. ndaanaan la ndaanaan la kenn weranteetu ko ndaanaan la ndaanaan la champion la maa koy. félicité ci combat bi maa ngi koy félicité ci combat bi bu baax a baax mais man waxatuma ci combat boobu man ci sama part li ma def ba bëre ci combat bi laa bëgg a maanaam mooy man Lac Rose ne woon na ma bul dem bëre ji parce que wéeroo yaa ngi dégg naru ma ko woon a wax parce que boo déggee ma bëgg cee dugg rek ci siise boobu dafa am lu tuuti lu tax ma bëgg a dugg ci siise siise combat bi parce que bi fayal nañ ma ci salle demu ma fayal nañ ma ci demu ma entraînement yi ma si doon dem damay dem nii ñëw avant may jël avance sama avance ak Jackson laa amee blessure bu metti barke Mouhamed barke Mouhamed rasulullah li may wax su ma si naree woor dara yàlla na bu ma jóg fii ma toog lak sax dani ma woon am na yoo xamante ni jarul wax parce que comme làmb la te jëlee nga si yàlla def na li muy def ba pare seetal leneen nga entraîné topp sa yoon mais ma ne ko dëgg la mais ma ne ko tamit dëgg la nga leeral ndax ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi lay bége ñu ngi lay sopp ñu ngi lay kii ndax Père Tafa gay nee na entraîné wu ma. waaw da waaw loolu loolu loolu moom su ko waxee sax man dama koy dëggal man damay dëggal loolu moom su ko waxee ndax woo na ma entrainement fu nekk bon. xëy na am na lu nekkoon ci man loo xamante ni mënu ma woon a dem mënu ma woon a dem entraînement te loolu noonu moom ba tey jii man waxuma ko si dara Père Abbas daal laa xamante ne nii moom wax naa ko ko. mais Pape mhm. nga jël Jackson Junior combat bi am ampleur nga jël avance di préparer di nax sa bopp di nax say supporter que ni entraîné woo comme xam nga ñu fay la salle demoo loolu yëpp loolu Pape Ndoye lan la mën a lan lan loolu lan lan lan la. c'est parce que boo gisee loolu noonu am bëgg a bëre. yow da bëggoon a bëre mais man damaa bëggoon bëre mais man sama jëmmi bopp man xam naa ne man mii di bëre ji ndax bëre ji naa ko ay mbapat yu bari. bëre ji naa bëre ji naa ay mbapat yu bari barke Mouhamed Senghor demi finale adresse fi adresse Senghor man ak moom 2 millions moom mi ngi may seetaan wala keneen ak keneen mi ngi fa woon damaa mujjee bàyyi. man damaa bëre ba jékki-jékki dem ci booy dem ci gars yi ñu leen man mënatuma parce que non du wariwu ma parce que instant boobu noonu bëgguma lor sama bopp dafa am non xam nga man duma taxaw naan lii moo ma metti wala lii mais dafa am looy sa yaram man damaa damaa damaa damaa am foo xamante ne nii gaañu woon naa fa gaañu bu metti waaw waaw loolu noonu man la mais loolu après loolu foofu ma gaañu woon noonu foofu ma gaañu woon man nit laa koo xamante ne nii man man mënumaa tricher mënumaa nëbbatu man gor laa lekk naa avance jaamu mu nekk promoteur bu bees ma jël yu bare baree baree baree bari barki Seydina Mohamed dëxañ ko nëbbu ko suñu waa kër ba sama yaay bi ma jur day ñëw fekk ma ma tëdd mu ni ma lan la lan ngay tëdd ma ne ko dara damaa jóge entraînement sonn rek tëdd billaahi wallaahi taalaay li may wax am na sax ay seede yu leer nañ yoo xamante ne nii am na ci. te non combat bi combat bi combat bi boo xoolee di nga xamante ne man combat bi. parewoo parce que ku gis tamit sa état de physique. Mhm. gis Jackson ñu xam ne ñu gars yi ba PAM bari dañ ne kii entraîné wu gis tamit Jackson te beneen bi mooy ñu gis dañ laa dal. ndax ñaa koy wax léegi sànq Bertha Fangé ah, am nañ sax ay sources que ni euh, Bertha Fangé. xam nga da lay woo na la ñu pam looy demul xam nga avance bu nga koy jël waa face ànduñu ci lépp daal nga jël teg ndax Père Tapha Gueye ñëpp xam nañ wax dëgg yàlla su waxee rek ndax ni mi ngi naan Pape Ndoye nii entraîné wu waaw sama père ma doon woo entraînement yooyu yor naa ci sax ay image yoo xamante am naa ci sax ay kii yoo xamante ne nii nit ñi moom xanaa kenn mënu leen a nax waaw mën naa ko wane bu la neexee. waaw mën naa koo wane parce que àdduna moom dafa nekk loo xamante ne nii xëy na dëgg la ba ma bëree ba tey génn ma waxuma fenn defuma dara xëy na maa ngi woon sama bopp. waaw maa ngi woon sama bopp man war naa dara war na maa mën a bañ a dal ma ñëw bëre daanu parce que nit rek laa mais tamit man li may wax nii adversaire yi taxul ki ma bëreel taxul keneen ak keneen taxul man sama staff ak sama encadrement. séede bi ñu ma seedeel laa bëgg a wan ne ni lii moo taxoon loolu moo waral may leeral mais su fekkoon sama diggante ak sama adversaire yi rek la billaahi wallaahi émission laay def sant gërëm gërëm ñu jàpp ci komba bi dem sama yoon mais soo gisee ma ñëw di leeral li ma daloon ci combat bi ba tax ñoom ñu bëgg maa def booy bu dul entraîné wala booy bu amul jom looloo tax ma bëgg koo leeral man kenn ëpp ma jom ci entraînement parce que man ay combat jàmbur sax ni ma siy taqe yaakaar naa ne sax ku ko xool rek war ngaa xamante ni kii dafa gëm na li muy def ku am komba mu fekk ma fi ma takk ci rib kontaagal la demal la saal maa lay yeesi kon sama combat su demee ba général di ma ci woo wuyu jiw ma ko perte faaga yi di ma ci woo woo ma téléphone woo ma téléphone woo ma téléphone ba sonn saal wala écrit wala box wala feneen wuyu jiw ma ko wala su may wuyu damay dem kamu fële dem sama yoon kon am na lu tax. mais est-ce que tey non père demu demuma fa mais wax naa ko wax naa ko per père Abbas waaw père Abbas moom wax naa ko ko après waaw ah, uh-huh. image image image nii mi ngi nii li moom lii kañ la ah, ma xool ah, le 25 octobre 2019 le 25 octobre 2019 mën naa teg mhm. mi ngi nii oui na nga def Père Tapha Guèye dégguma la gisuma la dégguma la gisuma la mhm. dama la woo pour nga nekk ci entraînement ñu jàppale la dafa mel ni daal après entraînement kon intéressé wu la bok ah, kon boog salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf asalaamaaleykum fils Pape Ndoye waaw ah, kii Père Tapha la waaw man dama la déggul boobu ba gisuma la ah, te bëggoon naa la nga defar sa taxawaay ah waxoon naa la nga ñëw liggéey ak jo waa liggéey ak jo le matin le soir nga dem contact liggéey ak jo le matin le soir nga dem contact diggante bi gàtt na combat boo xamante ne li ki des weer la gàtt na trop pour nga am ci ko li nga bëgg soo bëggee am li nga bugg nag da ngay ñëw ñu liggéey ak jour la matin liggéey le soir contact ah boo say voyage yooyu def ñu bàyyi la nga def ko ah perte fa may waxaat nag samay wax nag du neex saa bu ma waxee nag ngay jël samay wax sànni ci àll ba te ku sànni sama wax ci àll boobu da koy gis rek loolu leer na yàlla yaa ngi koy gis mhm. mi ngi nekk mi ngi ma yónnee bii bii mi ngi ma ko yónnee vingt cinq octobre deux mille beneen bi mu yónnee ma ko 13 novembre 2019 ak boole ko appel di ma woo chaque jour wax fa dëgg yàlla nit ki danga koy seedeel kon man su ma demee bay wane lii rek man moom laa bëgg dëggalal li mu wax. moom sama père laa bëgg a wane taxawu na ma. woo na ma fu nekk parce que yonent bi yàlla moo tax may wax woo na ma fu nekk fayal nañ ma salle salle bi Gris 2 doon entraîné fayal nañ ma fa mën ak Père Sow pour ma entraîné tegu ma fa sama tànk benn yoon. parce que soo gisee loolu noonu du sama ñàkk jom du dara damaa jagadi woon moo taxoon mënu ma woon a dem ba ci sama mag Lac Rose day xëy ne ma taqal gants yi ñu def lii wala taqal ñu def lii kon boo gisee ma bëgg a leeral lii nii pour ñoom ñoo bëgg ma ñoom laa bëgg a leeral pour wan leen nii la woon ci man ba tey mi ngi ci man jugul ci man muy jom ak entraînement man combat bi ma passé passé naa ko man xoolatuma loolu parce que amatuma lu ma ciy wax parce que fi mu ne nii loolu noonu wax dindiwu ko mais jëf la li suñu kanam ci làmb ji ñu jëf ko wane ko la mu leer parce que man nekk naa nit koo xamante ni du ma tricher xaw ma tricher sama père Tafa Gueye woo na ma fu nekk entraînement chaque jour sama téléphone message vocal sama gars yi may àndal yëpp ba ci général ay message am ngi sama téléphone dinaa ko wane. ñoom ñëpp chaque jour ku ci nekk daf may woo entraînement te li may wax nii après lañ koy doog a seetaan doog a li ma téye woon ba mënu woon ñëw entraînement général kalaaf bi mu préparé yëpp man ak ñoo ko préparé ndoo géej contact salle musculation leneen ak leneen te boobu aw ma combat kon man su ma demee ba am sama combat bopp te defuma ci loolu noonu mais kon war na ñoo xam ne sax am na am na lu ma teree dem defi farata boobu noonu. kon ñoom waa Fass waroon def est-ce que tey yow yaa waroon sol sa daal. Mhm. wala ñoom ñoo waroon a ñëw wax ak yow. waaw waa benn instant def nañ seen part parce que xëy na tamit nit moom. tey jii Fatma bu ma la woowee wala nga woo ma woo ma woo ma wuyuwuma la mën ngaa jékki-jékki nga ne ah kii dafa soof mën naa bañ a dem mën naa ko gisee noonu si ñoom parce que ñu ngi may woo téléphone ñu ngi may envoyé ay message vocal pour ma ñëw entraîner man tamit ma bëgg a bëre ndax xam naa ne su ma leen waxoon li nekk ci man wala li may yëg li ma daloon kon xëy na dañuy aj combat bi te man bëgguma woon ñu aj combat bi ndax bëre rek laa doon gis. loolu yëpp risques yi nga jël yëpp nga ñëw ba stade waa axlu laa bu yëpp tiim Pape Ndoye gis Jackson est euh, mhm. gis dafa humilier Pape Ndoye dàq ba ko Pape Ndoye daw génn. Mhm. mu ñëwaat ñemee xam nga gëdd na. sama premier round boobu noonu premier round boobu may arrière di génn saako yi premier round boobu may arrière di génn saako yi premier round boobu li ma doon metti barke Muhammad Rasulullah billahi wallahi taalaay bi ma jógee foofu noonu dama ne woon man Lac Rose dafa génn stade bi seetaanul combat bi Lac avant arbitre di siffler dafa génn stade bi dem yoonam Lac ndax ci biir stade bi laa taxaw di bëre di def ay échauffement di def ay affaire moom si jëmi boppam mu woo ma ma ñëw mu ne ma combat bi combat teel a teeyal defal nànk nangam ak nangam defal échauffement defal nii lu ma ne defal ma ne ko baax na moom ci boppam boo gisee may wax lii sax pour mu xam ni ba ma ko teg ba tey fa ko teg cër bi ma ko jox ba tey laa ko gën a jox kon boo gisee ci combat bi yi ma doon sant yu bari te defuma ko rek lii la ndax lii may wax nii su ma ko si tàggu sax du ma bàyyi ma wax ko mais man maa jël samay initiative bopp pour leeral pour moom pour ñëpp ñu xam ni cër ba ma leen joxoon ak respect leen joxoon ak nekkoon ci man ba tey mosul jóg ci man ndax ñu ci baree baree baree baree baree defloo nañ ma ci yoo xamante ni defuma ko ba ci général woo na ma téléphone entraînement yónnee na ma ay vocal entrainement ay vocal am ngi fii boo bëggee ma tegal la ko moom tamit ñëpp entraînement pour ma ñëw entrainement kon Jackson su ma ñëwee mu demee nii ma koy accepté. mais mhm. te Pape bari xamee wuñ xam nga yow. après man foofu noonu rek foofu noonu rek nar ma woon a bëriwaat combat Ah, waaw dama naroon a arrêté combat bi parce que instant boobu noonu maa ngi bëri jiwaat ak lu garaaw loo xamante ne nii non mënu ma ko expliquer sax barke Seydina Mohamed billaahi wallaahi taala yi mënu ko expliquer sax parce que instant boobu noonu noonu noonu man Pape lu ma mën a am ci àdduna taxaw dóorante moo ma ko gënal man Pape Ndoye su demee ba taxaw ba ci biir digg géew arrière rek foofu dama arrière arbit bi ñëw ba ci man li ma safa lan la dara dara dara kii ma ne ko noonu dara dara rek njëkkoontu waaxu dem. naa boobu noonu li nga xamante ni moom laa doon yëg ci li may metti dafa riir foofu. dafa yeewuwaat dafa yeewuwaat mi ngi yeewuwul nag ci combat bi ndax am na benn instant ma dem ci samay supporters tourné dugg ci diggu géew gi yàlla rek moom ma tiim. ma ci digg géew gi def accélération dem ci sama cumbikaay bi may def accélération di dem sama cumbikaay ci laa xaw a mel ni ku faqasalu ci saako bi bi ma xawee mel ni ku faqasalu ci saako bi loolu mënumaa gaañ mais maanaam la ma doon metti rek la yeewaat waaw la ma doon metti la yeewaat man tamit ma def yëfu jeune xam nga def yëfu bëgg a bëre def yëfu bëgg man même su ma dee doxe benn tànk maa man gëm-gëm boobu moo nekk ci man man noonu laa mel du ma tricher mais foofu noonu dama naroon a arrêté combat bi mais damaa tourné barki Seydina Mohamed parce que man man lag man ak moom nii man foofu damaa bi ma génnee saako yi dama tourné xool nii sama cumbikaay gisuma ko après am tam mu joué. am lu mu gisuma ko ma dugg ma duggaat si biir géej bi parce que instant boobu bi ma tënee sama cimikaay rek su ma ko gisoon rek man dama koy woo wax ak de composé ak moom foofu. ok expliqué ko waaw pour arrêter combat bi. billaahi wallaahi kees dal na ma kees damaa bëre bëre sama loxo damm ma tourné seen ko woo ko ba mu ñëw mu ne ma lan la ma ne ko sama loxo dafa damm sama loxo dafa damm mu ne ma ngëbal. nduyu ma nii ma nduyu ko mu ne ma ngëbal ma ngëb nii jàppuma mu ne ma mën nga ci bëre nii ma ne ko bàyyil ma bàyyil ma dem xool mu ne ma su fekkee est-ce que na ma ne ko bàyyil rek sama combat laay goote sama loxo dafa damm ci biir combat bi parce que Seydina Mohamed te bokkul ak poignée bi ma yóbbaale stade laa la wax ma jël risque boobu bëre ko te foofu noonu pourtant dem naa composé ak Lac fii nii li ma li li ma dal bi mu yëngatoo damaa tourné sama cumbikaay gisuma ko ma dëgg samay tànk dem bëri ji combat bi mais su ma ko gisoon damay dem ba ci moom lëngu ko wax ko ko mënatuma bëre dem ñibbi mais damaa tourné sama cumbikaay gisuma ko ku gis Lac Rose cumbikaay bi rek nga wax ma ko nga won ma ko ah, merci beaucoup barki Mouhamed yàlla moo tax may wax li may wax nii yàlla kese moom a tiim moo tax ma koy wax ma turne gisuma ko sama cumbikaay ma dugg jàmmaarloo dem bëre ji yàlla jox ma defet mais bert tey defet bi bàtt ni mu nañu bari mais man man non non jàpp ma man xalaatoon naa ne mën nañ maa daanu ñu nekk ba mu des dóor mu daanu mais soo gisee ma ne berte nañu bari mais bertu ma man xam nga lan moo tax c'est parce que nit ku ci nekk nit nga te nit ku ci nekk am na loo xamante ne nii da nga ko war a jox àqam gëme woon naa benn esprit boo xamante ni man maa mën ak ku mënti doon ci àdduna man gëm naa ne man maa mën laay demee te ba tey loolu noonu du denc man mais am na loo xamante ni dinaa ko dindi ci man mooy di amee blessure di bëre ji dinaa ko dindi ci man loolu dootuma ko defati sama àdduna waaw parce que du yëfu nit. mais ko gis yéen Rose def ko. Lac bëree ko bëree que tamit bon booy xool jar na ko jaru ko loolu noonu man la parce que xëy na léeg-léeg li tax yow ngay bëgg a bëree yow yaa ko xam. mais sa waa staff. non sama waa staff tey jii Fatma yow yow li li lay metti ci sa yaram wala li nekk sa yaram yow tant que waxoo ma ko man man mënu ma koo xam. staff mënul paase lu dul li ma war a defal mooy ñëw na fayal nañ ma salle bu ma war a entraîner boole nañ ma ak entraîneur bu ma war a entraîner alus bu écrit face alus am na benn bés per tafaagay woo fa ni ma ngoon demal contact ma bàyyi ba ay ngoon ma dem entrenement mais bi ma demee contact ma damaa dem entraînement fekk fa alus alus tubaab bi ma woo ko expliqué ko moom moom mu jël ay forooteem jël ay affaire am xam nga defaral ma ma teg a wax ko mu ne ma boo demee rek xëppoowal ndox nga tëdd affaire yi lay kii yëpp dalewu ma ci combat bi de li affaire yi may expliqué nii nekkul sama combat ak sama même avant may am combat la loolu noonu waaw avant may may am combat même bi may dem rëg-rëg ak Gris 2 barke Seydina Mohamed maa ngi sooxaale loolu noonu doon ma metti même bi may dem rëg-rëg ak Gris